mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di euh, nuyu waaye nag di ziar euh, ñëpp di ñaan saa su ne jàmm ci Sénégal waaye nag di ziar képp ku nga xamante ne bi yaay nga parce que nag ñi ngi toujours ci mois de mars jar na saa su ne yi ñu ngi leen di sargal di sargal képp ku nga xamante ne bi jigéen nga ak foo mën a ne ci Sénégal foo mën a ne ci àddina bi parce que kat euh, ñoom su ñu amee jàmm macha addina bi dana war a mën a am jàmm kon nag ñi nga xam ne ñu ngi sama plateau tey macha allah waajur yi fi ne ak waajur yi fi newul yëpp ñoo ngi leen di ñaanal parce que

enseignement public bu nu jógee ci loolu mbokk yi dañuy ñëw ak yéen euh, ci démonstration hijab saa su ne euh, di kontaan ci sunu xarit mage parce que saa su ne nag mooy ànd ak euh, sunu mannequin boobule di ñu indil nag ay démonstration Ijab hijab kon nag dinañ ci ñëw largement ak mom dans quelques instants waaye nag mbokk yi saa su ne dañuy kontaan nag ci ajuma ji di ànd ak suñu tonton Lamine Ndiaye parce que nag dafa am ay nit yu nga xamante ne bii dañu nekk ay référence ba noppi nag dend ak ñoom je pense que daf lay calmer di le rehausser di la sax jox confiance compétence kon tonton Lamine saa su ne RTS 2 moo ngi koy sant di ko gërëm waaye nag tamit mu indil ñu invité du jour bu nga xamante ne bi mbokk yi ah ci wàllu aar nag def fi lu rëy fii ci suñu réew Sénégal saa su ne xam nga ne dañuy jeexal ak vue sur la toile waaye nag euh, suñu invité tey euh, muy monsieur Omar Seck F-N-E-R-E, e, je pense que c'est ça, mais Force nationale des enseignants, des enseignants pour le renouveau de l'éducation. Wainak Benen invité euh, Moki, Monsieur Ismaila Sissé, euh, artiste comédien. Moki, Madame Régie, Dalusiwat.

ak ben femme bu nga xamantene ne bii contente. Euh, nañ ci <laughs> machallah ñi ngi lay nuyu Merci beaucoup Yaha. Je ngi lay fay comme toujours c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi mm-hmm. comme j'ai l'habitude de le dire ñu ngi mm-hmm. lay Nous di nuyu sama partenaire mm-hmm. <laughs> tonton <laughs> sunu kilifa di nuyu aussi sunu invité bi euh, monsieur Sec, mi fi teewal FNR di nuyu Mage Magique di nuyu aussi téléspectateurs yëpp on espère que tey thème bi leen indi laatal aussi. Mm-hmm. dinañ ci jàngat lu bëri xam nañ ni que sujet d'actualité la mais li ñuy faral di wax rek ñu ñaan téléspectateurs yëpp ñu déglu ñu ak xel te ban ñu dégloo ak xol parce que bu ñu dégloo ak xol duñ ñu dégg très très bien euh, kon nag euh, ñun ñëpp dégg nañ ko te defe naa na nga ko waxee noonu lañ koy defee ñu ngi lay gërëm di la sant euh, saasu na ci sa teewaay fi ci émission tam-tam waaye nag mbokk yi di nuyu bu baax a baax sunu tonton Lamine Ndiaye parce que nag wax dëgg yàlla ñamu ñuy indil saasu ne dañ leen di gëj a gis mu indi ñu leen ñu toog waxtaan ak ñoom tonton c'est un plaisir à chaque fois di feggoog yow man daal maa ngi ci euh, daal non seulement veste bi waaye maa ngi ci cravate bi ak sañse bi saa su ne euh, man fi ma lay jaarale sa tooñ <laughs> waaw gannaaw ba nga xamee nuyu naa uh-huh. war nga lu table ji waaw pour bañ a dellu siwaat rek ci lim gi ndax lim ni ba pare. waaw mu ñot di loolu yi. nu mu nuyoo. Mhm. mu nuyoo ko téléspectateur yi jàkkaarloog ñun du ñu seetaan. macha allah waaye dafa am lu ma la bëgg laaj. oui tonton. yow da nga jël mois de février. waaw ñu sotti ko ci mois de mars. waaw.

te muy dëgg kon nag jërëjëf ci lii nga def rek. te muy dëgg waaw ah, tey moom duñu xuloo. sant nañ la <laughs> bu baax a baax a baax ñuy nuyu nag suñu xarit euh, mage mage magique ni ko tonton Lamine di waxee. c'est toujours un plaisir ñuy feggoo ak yow parce que nag saa su ne dañuy indil ay démonstration yu am solo pour ñun waaye aussi pour les téléspectateurs c'est un plaisir de te recevoir. plaisir partagé ma grande Yacine. Mm-hmm. kii yaa xam du moins. Uh-huh. Euh, Tawa maa ngi koy nuyu encore di nuyu tonton Lamine de nuyu monsieur Seck moom xam naa ne sant bi rek a yàq rek. déedéet déedéet <laughs> d'accord kon <laughs> waaw tey ñu ngi ñëwaat encore indiwaat beneen ijaa bu gën a fashion. Mhm. am naa à tout de suite incha allah. incha allah en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax waaye nag saa su ne di remercier ñi nga xamante ne bi ñooy sunu ay euh, invité tey nag euh, monsieur Omar Seck euh, moom nag vraiment ñu ngi koy dalal jàmm bu baax a baax. maa ngi koy fàttali mu nekk nag ci force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm. c'est un grand plaisir en tout cas pour ñun di la recevoir fii ci émission Tam Tam. voilà yaa xam ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation nous bi aussi l'unionnaire parce que c'est une plateau qui s'étend à travers le monde euh, donc buñu ñu convier ci plateau buñu mel pour ñu waxtaan ci mbiru éducation et que mm-hmm. nous nous sommes des éducateurs duñu mën lu rafetlu ko mm-hmm. comme li doyen ndjay wax légui mm-hmm. duma delu ci tour yi ma ngi nuy képp ku nekk ci plateau bi di remercier particulièrement madame Diop bokku na ci ñi ñu contacter pour l'invitation alors di la wax ni ñun nous sommes à votre disposition fu RTS de wootee mhm. di wax ci éducation te ñun ñu donne des acteurs de l'éducation mhm. duñ mën lu ñëw rafetlu jataay bi et puis tamit euh, wax ci suñu xalaat nu mu rafet très très bien ñu ngi lay gërëm di la sant waaye nag xam naa di war a wéyal li nga xamante bi mooy collaboration bu ñu mën a am ak yéen mbokk ñëw ak yéen nag ci éducation et civisme maa ngi koy wax sànq ànd ci ak madame Awa Ndoye Diop euh, tey nag mu ñëw ak ñun euh, ci li nga xamante bi mooy qualité wu éducation ci enseignement public ñu dem xool lan la ci indil dellu nag mën a yaatal waxtaan bi ci plateau bi. waaw yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee bu xalaat ñi war doon yor réew mi ëllëg

Euh, planification ñuy def. seen at mi moo atim gone yi wul ñi bare wax nan jéem a booloo teewaan mag ñi. privé bi lan la ëppalee public bi mooy rigueur bi rigueur bi nag day day intervenir ci côté parents yi comme day intervenir ci côté euh, administration bi loolu la ñuy ëppalee da nga xam ne kii nga xam ne dafa yóbbu doom dans le dans le privé xam nga ki koy jaay day fexe ba li koy jaay turam la ciy sàmmaale. Euh, parent bi tam def alalam bu toogee ci kër ga tam dina fexe ba doomam góorgóorlu jàng pour mën a def résultat alors comme bu nekkee dans le public ni ñuy ñàkk euh, fayee noonu la ñuy soofantalee jàng xale bi ba nga xam ne daanaka di nga ci gis parent yoo xam ne li ñu warloog seen doom yi pour li ñuy jàng école ñu war koo euh, mottali ca kër ga dañuy dañ ciy bàyyi seen loxo. nan boole sunuy pour man. xale bi bon établissement public amna les mêmes avantages que dans un établissement privé et même sinon même plus là parce que nous xol ñun produits de l'école publique donc ñun ñëpp ay produits de l'école publique seulement te heure que xol ki nek dans un établissement public vous continuer di jàng ba am bagam ak une fois même à l'université avec les conditions de l'université mom moy gëna les gaaw qui adapté wu ci élève bi nga xamné ci privé la ñu ko orienter ko donc bam, am bagam enseignement yi am dans les écoles privées les mêmes enseignements ñoo am aussi dans les écoles publiques parce que boy xol ce sont les mêmes professeurs qui intervenir ci public bi qui intervenir aussi le privé Le concours général est. là mais l'école privée est en tête concours général est école publique est en tête mais une école publique yi nga au moins donc dañuy teel commencer def euh, la quoi la sélection parce que sélection si on ko fait, def donc moment où ñuy est en classe d'examen day fekk donc ñu am un produit déjà donc ici mûr produit boo xam ne donc élèves yi ci boppam élèves yi ci boppam dañuy prêt apte donc ici pour kii ci quoi mën ci génn. xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw. madame Awa Diop nak ñi ngi kontaan ci reportage bi nga xamante bi bii da ko indil té nak euh, di kontaan ci euh, école publique mm-hmm. parce que yakana né école publique ñi ngi def aussi Sénégal liggéey bu rafet parce que amna ñu bari ñu nga xamante bi ñi ngi nekk tay ay kalifa ci école publique yi la ñu jugee mm-hmm. te vraiment buñu faté né ne na né moy école yi nga xamante ne bi war nañ ci mëna japp bu baax a baax en tout cas mm-hmm. mu nekk waxtaan buñu wara war en tout cas ak suñu invité tay jëmele ko ci vraiment qualité éducation ci école publique merci beaucoup yaha man damay commencer déjà di remercier ñaari école yi ñu permettre ñu def suñu reportage bi muy école publique primaire Waaguñaay 3 bi nek garage Guédiawaye mhm. benen bi muy c'est maturin Diop bi mhm. nek ginnaw Blaise Diagne mu mhm. nek euh, zone B si je ne me trompe ou zone A ñu ngi leen di remercier parce que faciliter ñu liggéey bi bu baax a baax a baax contribuer nañ ci bu baax xam vais commencer rek par phrase bu Nelson Mandela di faral di wax mhm. dan wax l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde tout à fait parce que nit ku yarwul mhm. l'homme n'est asocial mhm. c'est son environnement qui le rend social dama vous donner jox exemple Tarzan mi nek ci forêt bi fay adopter comportement malais. deug la

lu de daf ciy jouer ñun ñëpp am na ci ñu fi produit école publique am na fi ñu fi produit école euh, privée mhm. mélangé nañu deux yi tantôt dem public privé mhm. mais avant ça da nga daan gis ni que bu kenn demee privé dan doon la la yambar mhm. <laughs> mais dañuy tourner vers public bi privé bi parce que pour ëpp sécurité faut ëpp pour et etc. je pense que sunu invité bi dina gën a mën a xuus ci biir mais fi may jeexalee rek pour permettre que mu débattre mhm. mooy ce matin dama doon lire rapportu banque mondiale bi mhm. bi mu lancé si euh, diagnostic bi ñu l'éducation en Afrique mhm. ñu étudier ci 44 pays par yenn saa yi dafay dafay metti nga gis pays c'est de positionner aussi bien ki bi parce que nous ko je parle de chiffres. Mmh. encore une fois sans que nous nous ñu dégloo xel té ba ñu mmh. euh, mmh. xol parce que politiser wuñu fi dara dañu bëgg discussion bi mu nekk un débat d'idées bu ñëpp di tiire rapport bi disponible na mhm. ou te ku nekk mën na ko te ku mën na ko alors moi je vais aller directement ci suñu invité bi monsieur Seck peut-être ben réaction très rapide par mhm. rapport ak sujet bi ñu indi ba mhm. pare nag ñu ñëw nak xol mil yi nga xamante ne bi euh, mi ngi xew ci suñu biir euh, éducation nga xamante je pense que l'objectif hein, aussi bien des parents des enseignants que de tous les Sénégalais c'est que éducation bobu ñu mën ko jox une bonne éducation à nos enfants effectivement bon thème bi am solo parce que mingi am dayo solo bi ni éducation solo ci nit dom adama. parce que bëgg différencier ñaari chose yu parents pour tekki ça veut dire pour forcément am mais mm-hmm. nit ki da nga ci mhm. jàng nga koy jëlee mhm. bu ñu nee jàng nag mooy daara ja rek fépp doomu aadama di dem mhm. ñu xamal ko moom mooy kan cosaanam moom lan liko askanam di Liko li dihare. dëkkam di xaare loolu da ngay defaru da ngay tàggatu da ngay jàng nit dafa war a donc ci lu mënul la su amul rek nitee di day am doye di day am te bu boobaa doo mën a doon kilifa ga mat pour doxal quoi que ce soit donc euh, jang fofu la né et d'ailleurs amna ben borom xam-xam bu mag pour ñu tuddé Jean-Jacques Rousseau mhm. bind na ben chef-d'œuvre ci pédagogie ñu koy Émile ou de l'éducation mhm. mi ngi tambalé loolu mu ni doomu adama bo juddo da nga ñak katan mhm. soxla nga ku la so juddé juddoo amuloo xam-xam soxla nga xamal ben protection soxla nga ku la aar lépp nga ni juddo ci ko am ci en terme de qualité te bo màggee nga koy soxla éducation mo koy def ci yow. absolument donc njëru njëriñu éducation mi ngi noonu. Mm-hmm. ci benen ci benen fànn. on va parler de l'école de la République képp ko nga xamanteni tay man nga jóg feug sa dënd ni man citoyen la manam cette notion de citoyenneté. jang ak jangale moko def ci sa sa xel. la luy pays luy état luy loi. Lui règlement lui comportement civisme patriotisme le lépp école moo def ci waaw nous aussi l'importance que euh, les écoles publiques en tout cas ci suñu mhm. évidemment nous avons beaucoup plus de nombre mhm. d'élèves que les écoles privées Donc, mhm. loolu nag dafa am importance pour euh, li nga xamante bi éducation effectivement ci loolu parce que si nous école de la république suis manam euh, état république bi war saytu xol ci yan anam lay ubbe ay école pour euh, citoyens yi ndaw yi ñi dem jangi doon ëllëg ay citoyens lool nak da koy défar da koy def mais bolé ci yemale ñëpp yemale ñëpp en terme d'offre pédagogique et d'offre éducationnelle ça veut dire parents, bi mom mo am responsabilité ni sama doom cursus scolaire bi la bëgg mu suivre ko programme bi la bëgg mu suivre ko étant donné que nak dañu ni l'éducation c'est un droit éducation pour tous pour tous état bi dafa war a école diversifier offre éducationnelle ça veut dire li nga vous savez ni mën na ko def ci anam état bi permettre mu def côté public mais nag ubbi une brèche pour ñi nga c'est des promoteurs privés nous permettre aussi ñu faire seen école spécifier un peu seen offre éducationnelle pour répondre aux besoins des parents loolu moo waral école privée di am mais la mission régalienne jangal citoyen lolu état bi la incombé légui nak da koy def ci l'aile privée ak l'aile publique et il faut dire que état bi des subventionner sax les établissements Absolument, privés oui. Ça, donc du lu ñuy dindi complètement ci ci ci état bi ak ci ci ci gouvernement bi ak ci autorité yi. ak ci Sénégal ak ci monde bi ci monde bi. Mhm. alors légui nak jang dafa dem ba doon enjeu xam-xam xam-xam dafa dem ba cher.

mais il y a au moins une participation symbolique du parents yi di def. très symbolique pour seen i ñu euh, monsieur Seck ci vraiment qualité de qualité éducation bi ci vraiment enseignement public bi parce que je pense que tamit le na nekk na lu nga xamante ne bi téléspectateurs ñu xaar. alors moi je dirais que enseignement public bi éducation bi ñuy joxe c'est une éducation de qualité soo dee xool ci programme yi ni ñu koy tëggee Sur des xool aussi ci enseignants yi. Parce qu'il ne faut pas euh, se tromper. Même si jàng ci privé bi jàngale privé bi ñoom ñoo nekk ci public bi Té ci public bi la ñuy recruter ay former anam yu des critères bien définis d'excellence et de qualité alors nous, génn ñu affecté les dans les écoles publiques yi nga gis ñooñu ñoon am ñu dem privé bi mhm. mais ci public bi comme public bi intéressé cette fois-ci mhm. moi je dirais que euh, sénégalais Bogis, jangale kat la par excellence pédagogue parce que pédagogie euh, explication wax mu leer xam-xam bi dugg ci bop xalé bi lool rek la laaj te sénégalais yalla may na parce que nous avons une euh, tradition d'oralité mm-hmm. alors for dem for dem ci monde bi ñuy wax matière d'éducation ding fa fekk ben expert au Sénégal mm-hmm. mu te loolu may na leen loolu. ñun ñi dem voyager. ci dans le cadre de l'éducation éducation ba Japon. gis nañu peut-être priorité. Mhm. bi nos partenaires di apporter ci la délégation sénégalaise parce que ñoom dañuy wax ni sénégalais nous ñoom li ñuy xaar ñun ñoo leen koy indil ci xam-xam ci ci éducation. donc bu nous gisee état bi di ci def ay moyens yu ñu toll parce que nous nañ ci PDF plan décennal de l'éducation et de la formation depuis 2010 ba 2010. Euh, depuis 2000 ba 2010 légui ubbi nañu benen programme bu bees bu ñu tuddé paquet plan d'amélioration de la qualité l'équité et la transparence waa légui ci ci plan yooyu noonu fan ngeen ci tollu plan yooyu ñi ngi ci paquet actuellement ni paquet mom liko ko tax a mu améliorer qualité njang mi indi équité manam euh, les élèves de Sacré-Cœur dans le public avec les élèves de Fongelemi ou de Kermadiabel Nous avons le même droit nous avons accès à l'éducation infrastructure scolaire yi ci war ñu am ko am avons yu baax ñu avons ci anam et puis aussi transparence parce que euh, système n'est pas très ko nous ni ñu koy l'air, dafa et que l'État a dawal na ay initiative aux nga ni parents d'élèves bi communauté bi am regard ci gestion école bi c'est très bien mu nek nak madame Awa Ndoye Diop yu nga xamantene bi yakana naa ne faaw ñu léral ko parce que je pense que euh, faawu ñu euh, nek ensemble pour que éducation bi ñu bëgg ak qualité bi ñu bëgg euh, aussi bien les enseignants que les parents ñu ñu ci jël aussi bien les enseignants que les parents man li ma bëggoon laaj sama way rek mhm. monsieur sec mhm. moy xam nga sank da nga wax ni éducation du nit ki buñ la dugalee sa dom si école rek dafa wara tekki finalité bi moy aspect xaliss bi mhm te ji ñu ci ni que buy dem école pour dem ci bureau ba borom alal campagne de sensibilisation yeen ngeen hmm. ni pour que nous mën wajur yu école que affaire punir xale bi que pour que mu réussir hmm. mais gunge ko la pour que mu pour mën a pour effectivement pour mon mën <laughs> mhm. bon man bug à chaque fois nous poser euh, problème bi mhm. pas qui tendance bi nga kii effectivement ñëpp pour lañ koy gisee mhm. lan l'année ñu war def comme sensibilisation pour euh, secouer les parents sans ce contraire bi la warone a parents yi ci boppam ñoo war am conscience su ñoom une éducation d'homme ñoo ko c'est a à A ba Z état bi dafay accompagner permettre accompagner loolu mën a mais par exemple nga gis parents d'élèves bon xamni école day tidji octobre ba juin xamul sax domam kan moko yoré ci école ba. Yalla, xam na ni mosu dem sax gisul madame wala monsieur bi nga xamanteni ni jangal domam mhm. amul ak mom ben rapport. Mhm. Mhm. te loolu dafa bokk ci li sawarlo xalé bi. parce que tay bo jangé dem école gis sa yaay wala sa papa ñëw ci école bi waxtaan ak sa monsieur après daal di dem di nga xam ni yow kat sa parent li ngay def nii vraiment amal na ko jëriñ mais loolu daanaka amul loolu donc c'est pour noter euh, des engagements parents parents yi et que loolu day topp euh, élève bi ci école ba fekk si ba ci très bien alors monsieur que ñu jox euh, parole ki nga un ne bi moom mooy tonton Lamine euh, parce que ça ba léegi ñu ngi wax lu importance parce qu'on mm-hmm. parle de la qualité euh, de de l'éducation de enseignement public mais sànq ba léegi je pense que li nga xam ne moom mooy qu'il faudrait qu'il y ait une collaboration ça à dire qualité bi tamit parents yi tamit ñu am nañ ci wàll bu mm-hmm. sama xarit. waaw euh gis nga mbiru jàng déjà nañ ko xool ca fa mu soqe ko yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu dikkee ci àddina liñ ko wax dañ lan iqra lañ ko wax mhm. ñu bari dañoo juum ci iqra boobu ndax ñoom dañ ko tekkee ni mooy jàngal en fait li mu ëmb raw na jàngal mhm. gëstu baa ngi teg ak yeneen ak yeneen mhm.

ndax bu yàlla defee mu génn bitim réew te loolu lañ authenticité bi mu am. ñu tuddee ko sénégalais d'abord. léegi nag ñu saytu ko ci wàllu xam-xam. loolu yow man dama parce que mm. yow da nga ma indil li nga xam ne nii tey bu ma ko xoolee ci métier bi ma dugg di ko mm. mm. parce que li indi ci nit mooy ubbi ngir mu am xam-xam go, xamni ni, ndax bo demé ci réewu tubaab yi dañu sat sen dom hmm. pour ñuy dem di defee ji théâtre pour rek yokuté ci sen bop D'eng, yokuté bobu, li théâtre di def ci sen bop bo demé ci réewu tubaab yi ku ci ne sa dom jël nga ko boo ko jardin hmm. yaa koy pour mu def théâtre hmm. mais fi mom football ba lay yob c'est vrai que mo gëna a gaaw indi xaliss mais football bobu. sans jàng sans am xam-xam mënu la jëriñ la preuve année école yi nga fi gis ak académie yëpp ñu ngi jugal jàng léegi ci seen waru kii kon jàng lu am solo la jàng ubbi ubbitib nit la jàng dina tax nit ki ci boppam lépp loo xam ne ni soxlaam la jëm ci koom-koomam mu mën koo am mën a jëriñ dara man nag dama jiital jëriñ sama réew avant may jëriñ très bien alors euh, euh, madame Awandoy Diop c'est vrai que nous euh, avons bi de nous fi parce que nous avons besoin de wax bëri il faut que nous terminions. ñu terminer une dernière question question que je poser encore une fois c'est suñuy Parce que, éducation parce que dëkk bu aussi langue nationale la moom avancée muy olof bi di pël bi et cetera parce que tey jii xale yu bëri. Mhm. dégguñu tubaab bi mhm. nan ko il faut qu'on l'accepte. Mhm. parfois euh, dañuy nekk si kii ku ci waxante yow da ngay xam ne comprendre est-ce que aussi jotul pour que ñu dugalaale suñuy kàllaama si école yi pour xale yi gën a mën a comprendre liñ leen expliquer comme jëf kii bi euh, finalité bi mooy xale bi nite. te pour que mu nite làkk ko si li mu dégg. effectivement bon li nga wax nonu mo am et puis acteurs yi ak décideurs yi ñi ngi ci xalaat bu baax. Mhm. parce que experts yi définir nañu ay critères yu bari yo xamanteni bokku na ci li tax euh, jangu xalé bi gëna ñong muy wax bi mu mhm. parce que par exemple sun système ñi ngi utiliser la langue française qui est notre mhm. langue officielle. mais on dit que en pédagogie c'est une langue étrangère et seconde. manam yaangi jang yow ben xam-xam. di ko jànge ak kàllaama boo nga xam ni kàllaama boobu ci boppam da nga koy jàng mhm. donc xam nga loolu c'est une double difficulté <laughs> exactement alors loolu moo am ba d'accord nañ ni dañ ko war a kii mhm. mais nag ban langue maternelle mhm. moom ngay dugal ci système that is a question that is a question parce que boo defee olof. di nga gis ñeneen ñu jóg ni la. ñun boobu du suñu langue bu ñu nam mhm. nga def pulaar la même chose joola la même chose. Mhm. donc on est en train de réfléchir ci ban schéma la ñuy utiliser pour que peut-être bu ñu amee langue officielle à côté ñu am langue du terroir. très très bien alors loolu euh, mu wax mbokk yi dafa am solo te comme ni mu ko waxee ñu ngi ciy xalaat te defe naa ne wàll wi nga xamante ne bi tey indi nga ko mhm. faaw ñu ci gën a xuus def ci ay pàcc. Euh, parce que lañ ca mën wax bari na en tout cas euh, lañu sop moy té lañu bëgg bu baax baax moy euh, enseignement public bi am qualité parce que défé na né bo amee qualité da fay da fay wëyel mhm. ci enseignement privé bi mhm. ñu bokkandoo ñun ñëpp xol naka lañuy def pour que non seulement xalé yi nite mhm. waaye mën a réew parce que pour nga yoré réew faaw nga am ay outils qui te permettent de yoré réew moy yar bi mooy xam-xam bi moy gëstu bi te loolu yëpp éducation ëmb na en tout cas ñu ngi gërëm di sant bu baax baax mbokk yi madame Awa Ndoye Diop Diop euh, di gërëm aussi suñu invité euh, muy euh, monsieur Omar Seck nek ci force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation. Xamna né ci ci panelu émission bi dana am aussi momi tamit cadre bu nga xamantene bi dana ko sanni non seulement à l'endroit des enseignants mais aussi à l'endroit des parents parce que defe naa ne sànq ñu koy wax ba légui diko bamtu ñun ñëpp ñoo seq li nga xamantene mom moy éducation tout temps ki mbokk yi ñi ngi sante di gërëm ñu xuus ci émission tam-tam ñew ak yeen ci li nga xamantene mom moy ijab du jour ànd ci ak suñu xarit mage magique ñu dem xol démonstration bi mbokk yi dellu si waat فجرا جئت بعد العسر يسرا ah bon c'est vrai que j'ai pas une belle voix <laughs> j'adore la musique euh, elle est très belle et je dis eh, c'est très profond mon mm-hmm. vendredi j'aime bien les autres rubriques mais rubrique B j'aime beaucoup mm-hmm. mais anyway euh, c'est magnifique déjà j'adore la chanson mais mm -hmm. en plus sunu mannequin bi macha allah ba noppi nag ña koy aussi ñoo ngi leen di sant. mais lu indil c'est très fashion. oui c'est magnifique. c'est magnifique. et <laughs> comme ni ko waxee rek euh, boo xoolee encore. Euh, ñoom euh, salon Mamita indi mais salon Mamita ñu ñoo coiffure et tout mhm. très joli. Ah lii nii mën nga ko sol fu nekk. li ma ça sera extraordinaire. Mhm. fu neex mën na dem très très bien alors euh, tonton Lamine lan nga xalaat ci vraiment encore démonstration bi nga xamante ne suñu xarit bi Nafi Lamine macha allah Nafi. Lamine Nafi Lamine tey indiwaatal nañu ko. <laughs>

gisoo loolu yow gest bi. ah soo ko nuyul ma ko bi. waaw man loolu lay wax ci ah, kon yow rek la yow rek la gest. la ilaha illallah. waaw léegi aw ah, comme nee na moom moom moom geste bi moom boo defu sax commentaire ci ijab bi. kon aw ah, ah, yow ma bàyyi la nga def commentaire. tout est parfait tout est parfait. oui ijab bi <laughs> macha allah comme on a l'habitude de le dire. Mhm. mage magique. Mhm. rafet na trop ba pare dina mën a dem si liggéey. dina mën a dem cérémonie dina mën a dugg fu nekk. et ça donne envie. Mm-hmm. non ça loolu mhm. këñ moom chaque vendredi ñu wax ko vraiment ça donne envie de. dañu bah, soxla ñu euh, ñuy influencer bah, positivement. dégg ngeen dégg yéen jigéen ñi bu leen ko yore rek. <laughs> bien ñun góor envie de quoi envie de bah, faire comme elle de faire comme elle non vous leen waxandoo ah vous leen waxandoo kenn par kenn envie de faire comme elle de toute façon, ça va venir. Hein, euh, <laughs> Avec l'âge, bientôt, hein. bientôt, bientôt, <laughs> Voilà. Uh-huh. Non, ça donne envie. C'est très joli, c'est mm-hmm. professionnel. etc. Mm-hmm. C'est pas trop extravagant, etc. trois points de suspension. un mot par rapport à euh, vraiment Oui, c'est comme ça parce mm-hmm. que man peut-être euh, amna de ay Ibadou, rahman ñoo mhm. xam ni voile bi moom c'est par conviction religieuse mhm. lañ koy defee mais j'ai constaté aussi que instant bi nii euh, muuru bi jigen ñi jël nañ ko. Mm-hmm. am na ci ñu bari peut-être finalement mode. mais je dirais que mode bu rafet la. Mm-hmm. mode bu baax la. Mm-hmm. en tout cas lépp loo xamanteni jëm na ci renforcer lolu jigen muy yiw. muy mur ay cëram yi nga xamni daf ko wara a lolu mom moom bokk na ci lo xamante ni rek lay indi ci réew mi quoi. moi je l'encourage parce que dama am dom bo xamni ni mom dafa dëkk ci ijab mais par conviction la. oui ah, très très bien ah, alors peut-être euh, Maj on va on va terminer. oui euh, xëy na ñu am ñoo remercier en tout cas saa su ñi nga xamante ne bi dañuy muuru ñi ngi xaar vraiment le vendredi parce que mage magique ça mhm. su ne day ñëw ak hijab yu nga xamante ne bi ànd ak yére yi aussi yi nga xamante ne bi dañ ko koy solal et les couleurs et aussi euh, tissu yi muy àndal oui comme tey jii ni ñu sol nii rek jëma faa ay dara tamit moo fiy jaaxaat ba nga ko bëggee jot danga koy woo 77 567 83 21 mingi la mhm. bon je remercie tout le monde particulièrement ma maman. Mhm. ak sama rakk bu jigéen ak jëkkëram suñu Modou. Mhm. ak aussi ma maman aussi bi nu depuis Italie. très très bien merci. en tout cas ñi ngi lay sant di rendez-vous inshallah. la semaine euh, prochaine euh, mbokk yi ma dem régie dellu nous euh, ñu recevoir ki nga xamantene bi invité du jour moy invité tonton Lamine Ndiaye nous yi ñu dem régie dellu nag euh, dañuy am mbégte lool vraiment di recevoir euh, euh, suma ma monsieur mais monsieur monsieur Ismaël Cissé ñi ngi lay nuyu tonton di la dalal jamm bu baax baax ci plateau Tam Tam di contane nga nek tay suñu invité xamna naa ne ñu bëri namoon nañ la parce que certainement gëj nañ la gis waye laata nak may jox cadeau gi tonton Lamine ma bàyyi la nga nuyo contane aussi si sañse bi nga ñu sañsel parce que tonton Lamine leg leg day ñew ak façon yi waye yow sa boss rafet na. jërëjëf merci beaucoup kontaan naa trop ci invitation bi. Mhm. jërëjëf. Eh, yal na yàlla def jam amin amin eh, amin ñepp ñu fekke amin tal ko. Mhm. kon bok ma ngi baye Lamine. Mhm. mu amee lu may laaj wala eh, ma tontu ci inshallah yeen ñepp ñëpp. man xam nga rek yow moom mburu faf ko faré ni la yow. <laughs> bon alors Ismaïla Cissé. Et là sax laa koy wax. Mhm. bien que xam ci intention le la mu dem parce que ku jullite le mhm. dem ko ku mhm. voilà. donc firndeel na ko boppam. lii laa bëggoon mu parce que dañ ma koo comme man gisuma won xaw ma mom moom ci bopam bu ko waxe dina gëna am firndewu té ki nga xamni ni mi ngi koy sétane dana ko déggee ci euh mu nek comédien yi nga xamni ni ñoo njëkk ci théâtre ma wallaay mu fekk fa jamonoy comédien yo xamni yu mak la woon yi gënon na mak

Je me déggee aussi euh, Omar Seck euh, ma dégg monsieur Ismaël Cissé notre invité s'appelle Omar Seck <laughs> ah, ça m'a fait penser à lui ça m'a fait penser à lui donc en 1965 le Guinée école des arts n'est que le premier prix de tragédie avec félicitations du jury très bien Alors, moom defe suis ci jamono un jamono boobu ma koy def de ah, la kay ba 65 69 laa quoi am. Uh-huh. ba tey jii que ko feneen am. ah ok ah, mm-hmm. alors bu gor Il waaw bu mm-hmm. Macbeth la Morlam. Coup de vieux. Mm-hmm. peut-être ci lende moy bi voilà <laughs> euh, la tragédie du roi Christophe foofu lay à tonton Madaga C'est le ko ma di la wax ni rek ni mhm. expérience bi mu am tey. Mhm. lu ñu war a jox xale yi la. absolument moo tax ñii waruñ leen bàyyi ñuy mhm. dem retraite. dëgg la parce que bu ñu demee retraite te xam-xam bii rek la ñu xam. ñan la ñuy jàngale ji ëllëg. ak ñuy roy si ñoom. te euh, boo ko gisee ñàkkul dara ci li mu daan def ëllëg. ndax ba léegi mu ngi. tourner ay téléfilm donc loolu de femme importance mhm. la reconnaissance absolument valeur le bu xam cultiver dans l'esprit des gens très très bien pour que nous bannions ah, alors monsieur monsieur Cissé tu mm. euh, euh, euh, vraiment théâtre yi nga jot a def yow yow ban mot la ci marqué en tout cas bëgg nañu aussi nga ñëw ak ñun ci la tragédie du roi Christophe mm. euh, ma gën marqué daal mooy Maba le signe. ah et pourquoi ndax Maba Euh, maa ko créé. d'accord def recherche yi si war joué ko gars yi nangu ne ne baax na rafet na. Euh, ba waa ñooro bi ñuy def anniversaire yu cent vingtième anniversaire Maba Diakhou dañ ma invité. ndeysaan Nioro yëpp maam lañ may oowee. ndeysaan ñëpp daal di waaru ñu yóbbu ma fi nga xam ne yërëm ak mbaxaneem fa la nekk Maba Diakhou laa ko de ñu solal ma ko. solal ma mbaxane bi. Ah. ne mbaxane bi képp ku ko sol bu la jaan màttee boo ko solee mu wàcc mu solal ma jooyu yëpp macha allah wàccee fa lu ma téeméeri kaamir mm. ñaanal ma kooku dafa mel ma ko ca Nioro macha allah ñu ngi nuyu waa Nioro yi nga xam ne ñu ngi seetaan RTS 2 vraiment ñëpp maam lañ may wax de ndeysaan toujours wallaahi ah, ah. benn baat boo génnee ci waxtaan wi mm. euh, Maba yaa ko créé ñi ñàkk dégg dañuy naan Maba ci boppam yaa ko fent alors création boobu naka la demee pour que nit ñi gën a xam lan mooy création boobu parce que comédien yi dañu xóot wax. Mm, moom bokk na ci kilifa yooyu. parce que bu ma nee création boobu c'est-à-dire recherche yi ma ci def. Mm-hmm. Ah. parce que bi ñu àndee texte bi ma jàng ko xool gis na lii daal euh, am na dimension. Mm-hmm. nit ki am na dimension war naa ci gëstu xool moom lan la def ak fan la yem ma mun ko jël pour jéem a interpréter loolu mu doon def le personnage personnage oui. ma euh, vraiment ci parce que sonoon ci mhm. mais bi mu sauter ah, ah, mhm. en tout d'accord nañ ne mhm. Euh, Maba vraiment dimension très très bien alors tantôt, comme nag euh, vraiment ñëpp xam nañ comédien bu mag la dañu def dem régie

kumba kumba kumba kumba ndi yaay xoolal cin ndox mi ma ci defoon baax na ba ngeen ah. ma ne santal yàlla kumba te seet ni ñi nga tane. mbokk yeeg xarit gis ngeen vraiment fallait que ñu plongé wat leen ci vraiment plage yi nga xamante bi monsieur Ismaël Cissé dan na ko def théâtre yu rafet way nak tonton Lamine foog nga may ma parce que tragédie du roi Christophe vraiment foog nga may ma mu ñëw ci touti waaw du ñu def ñaar euh, sama boss ak sa boss parce que dafa am fu ñu fu neex fo xamni mhm. valeur yi mu gisoon ci màbb waaw xam nga loolu laaj na ñu dugg ci dëgg la parce que valeur yooyu mom moom la taayaat di jëriñ pour mhm. cultiver ko mhm. dans l'esprit des gens très bien gis nga su papa waxee man waruma wax ma ngi déglu dégg <laughs> balaa may Christophe donc euh, ces valeurs là nga bañu sol la ba xamni bi ñaanal la valeur yi ñu gis ba def loolu yëpp. kon yooyu nga xam donc théâtre am na njëriñ. Mhm. gis nga kuy def théâtre moo war a gën gëm parce que gënoon nit ñi. Mhm. gën loo leen baax gën loo leen ndey gën mais da ngay joué. Mhm. génn taxaw ñii di jooy. ñii di def di la ñaanal amna sax ben ki buma ma dafa demoon Tiwaawoon mhm. ma Abdou, dabax mhm. ma dugg ziaré ñaan bay génn mhm. gaay nan ma eh eh eh wuyul yow ma kan ñu wuyul sëriñ bi ma ban wuyul sëriñ bi mi ci biir ah ma wañeeku ñew taxaw ban ban sëriñ euh, doomu ma Khalifa, ma ay ma pour ñu fas ndax li ngay def dafa rafet mhm. billaahi mhm. dama wut kii defal ma numéro téléphone am ñuy jox ko maak moom mhm. muy nak euh, ay euh, enseignement euh, monsieur sec parce que yakana ne xeyna na defin bi rafet na waxin yi rafet na ba nga xamante bi ay kilifa mën a bëgg fasantal yow kóllëre loolu yëpp nekk ci li nga xamante bi éducation bi théâtre am ci wàllu doomu aadama. muy seen lu am solo la lu am mhm. solo la d'ailleurs aduna sax théâtre la. Mhm. la vie ci bopam théâtre la ku ci mhm. nek ak rôle bi ngay jouer ci société bi. mais man j'approuve parce que saay boo créer ben personnage. xamal ni automatiquement. bu vidéo bi dawee ci télé bi rek. personnage bobu existé na ci société bi déjà beaucoup lim ay personnages. Mhm. mais dans la vie di nga ci gis xalé bo day gis euh, monsieur ci mhm. ben qui ci mhm. mu di euh, son comportement vestimentaire et tout ça. donc yow modèle nga. lay ci éducateur vraiment mu ni dara ak éducateurs yi. c'est des éducateurs à l'écran ñun nous sommes des éducateurs dans les classes. très bien ñu ñëw ci euh, tragédie du roi Christophe. voilà waaw tragédie de la Christophe mhm. Douta Seck moo ko créé mu ngi créé en France eh, moom ma ko nettali moom ci boppam Douta Seck ah sama xarit la woon ndeysaan mu ne ma bi ñuy defee audition Christophe ca Paris il y avait plus de 150 cinquante comédiens ku nekk ñëw passé mais ku ñëw ba jàll rek Césaire ne ko non c'est toi ne doute yow yaay Christophe. très bien. gars di jàll di jàll jall ba mu jeex Césaire ni ko man yow laa jël yaay def Christophe. doute ne dama tiit ba jël texte bi def ko sama suufu <laughs> parce que xalaatuma ko woon. dëgg la xalaatul woon ne dina mun a jouer eh, dimension Christophe ci dimension boobu mais yàlla may ko ci ndam ba nga xam ne ñëpp dañ ne Christophe daal duuta sekk.

doute ken du remplacer Mamadou djum moo ko bëggoon remplacer doute feebar. Mhm. Mamadou djum bëgg jël taxi bi mu ko non non do jouer man may jouer feebar na mais damay jouer ken du ko jouer. Mhm. ken jouer ko. Mhm. ba muy dund ba ni mu dee kenn remplacer ko. xanaa Ibrahima mbay bi ñu doon def bi bi ñuy dem fele Gabon. waaw yóbbu tragédie mom lañ jox mu def rôle Christophe. gis nga gis nga li muy nettali nii. Mamadou djum bi ñuy lim léegi mi Paris actuellement. Mm. Euh, fa lay liggéey mais Modou Dioum am la même chose bu ko dal fii ci Sorano xam nga bu ñu tragédie nit ñi di ree vraiment day nekk loo xam ne nii c'est aberrant da nga mais comment se fait-il que ñu j'ai tragédie mm-hmm. Mm-hmm. nit ñi di ree d'accord mais dafa jékki-jékki taxaw ne teg ñëpp di ko xool mu jékki-jékki daal di excuse bu ba pare daal di

est-ce que jotul pour que ngeen tijji école boo xamante ni c'est vrai que Sorano mu ngi fi. Mhm. mais ngeen xool naka ngeen ko mën a rendre une école carrément boo xamante ni labellisé ba ku bëgg def théâtre forcément dafay jaar si yéen ngeen wax ko yoon bi naka lay solo parce que euh, monsieur Seck wax na ko léegi naka lay waxee. yan kàddu lay yëkkati. Mhm. parce que mot bu génn rek xamal ni am na ku koy utiliser. do xam nak naka lu koy utiliser dafa am solo mm. artiste tout le monde peut être artiste mais artiste avec un grand A c'est pas donné à tout le monde waaw dëgg la li nga wax mm. lolou dëgg la am solo la waye dama yaakaar état bi dafa def daf ci def négligence quelque part parce que amoon na école des arts il mm-hmm. fallait la ñu jaar ba genn après bi ñu koy yóbbaatee fële ci ci weden bi section art dramatique dañ ko éliminé donc gars yi bëggatuñ woon kon ñu def théâtre ñu éliminer section art dramatique c'est théâtre donc dootul am kenn dootul jàng théâtre donc dañ koy jang nii dans l'état tas te kooku amul njëriñ nit ki fokk nga nekk talibé pour nga nekk professeur. Mm, dëgg la pour nga mun a jàngale. Mm-hmm. ñun ñu dañ ci jàngale sonn ci. Mm-hmm. di yenu ay xeer di def ay exercices. luñ naan tar tarbiya non la noonu lañ defon di taw ci boru geej di daw di yuxu mm-hmm. man amna na bis ma nettali benn anecdote benn ben mère may def exercice. Mhm. mu ngi ànd ak sëtam may def exercice ba mu yàgg ma dégg mu naan sët bi ah.

Mm-hmm. man dama naan joué le roi Koundaan. Mm-hmm. man dama naan joué roi Koundaan ci Macbeth. mais dama daan yenu décor ba pare de monter ci décor bi. ba pare di jouer. Mm-hmm. tout à fait en même temps. donc stagiaire bi da ngay sonn da nga war a sonn ci mbir mi liggéey bi ah dafa am solo. te da ngay jàng chaque jour. dëgg la métier boo xam ne la doo jeexal. Mhm. toujours yangi jang sa yo jang pièce ou baisse. rek. yangi jang alors là jox euh, tonton Lamine euh, euh, fan nga ci degré oui <laughs> il faut que comédien bu mhm. oui. Mm.

très bien il mhm. t'a parlé de ce côté là qui est très euh, spirituel c'est ça mhm. hein, et que nous qu'on du wér di dem yoon. Mm. ndeysaan sama xarit la de. ndeysaan très très rapidement très rapidement. parce que dafa wax ba évoquer le cas de l'école nationale des arts. moi je suis sortant de l'école nationale des arts. Ah, arts plastiques et effectivement limu wax amna parce que ñun jamono bi ñu fay ne de 2010 à 2015. Mm-hmm. euh, session arts scénique xawoon euh, ah, top ay mm-hmm. ñaari at ba ñett yo xamni ni recruter wuñu mm-hmm. mais loolu liko waralon moy que euh, xam nga pour nga jang carrément arts scénique. yëmul rek ci théâtre bi mhm. da ngay jàng philosophie mhm. jàng sociologie jàng lu bari loo matière yi lay defar donc loolu nag il faut nga am benn niveau intellectuel mhm. académique pour mën a amorcé comment dirais-je formation mais bari na woon nañu fay ñëw bëgg a jàng mhm. ay ño xamanteni am nañ talent bi rek mhm. mais yalla dafa def peut-être jànguñu mhm. alors amuñu diplôme certification waaw mënuñu mënuñu intégrer l'école en tout cas je pense que problème de niveau la woon parce que mbir mi aussi tamit buñ né théâtre def leen théâtre def leen théâtre nga ni bëgg na théâtre bëggu dem dugg noonu théâtre non il y a un problème de niveau aussi alors on ah. va on va terminer malheureusement alors tonton ñu bàyyi la nag euh, xëy na yow tamit nga teunk parce que en tout cas téléspectateurs yi may fàttali muy très très grand comédien monsieur Ismaël Cissé nous am l'honneur de le recevoir Fiti plateau Tam Tam jox nañ la cadre waaw jërëjëf mais euh, li may qui kii daal mooy xale yi mhm. nañu góorgóor bu parce que lépp luy jàng da nga ci war a sonn mhm. te suñu métier bii mhm. du métier caaxaan bu ko mais yi yàq maa ngi gis ci télévision yeeg yu nekk ba amul njëriñ télévision yi aussi am nañ ci responsabilité. Mhm. Mhm. parce que ku nekk ñëw monti defar sa benn sagaru euh, série rek ñëw joxe ko. ñu jël ko di ko def remplissage ci télévision yi. Mhm. loolu rafetul loolu baaxul. très très bien en tout cas. Euh, loolu loolu daal nga ñuy nga ñuy dénk. Euh, oui oui tonton ma bàyyi la nga terminer rapidement. <laughs> oui oui ah, allez-y tonton mooy jaawali théâtre yeeg téléfilm yi yoo xam ne du dëgg du yoon ba rafetul. da nga ci dégg yoo xam ne dafa tegginikul di saga di wax lu di def lu na théâtre mhm. très bien xalé yi un théâtre bobu mhm. dañuy théâtre du théâtre. yak théâtre la. Mhm. état bi aussi war ci taxaw. def classification des artistes. dafa am comédien professionnel. c'est professionnel amateur. donc il faut ñu xam ku nekk fi pour ñu mun dem. très bien en tout cas mais jaxase mélanger rek ñooñu anam comme ça c'est pas bien. <laughs> dëgg la c'est vrai que nag jaxase mélanger du jëmale ben réew wala quoi que ce soit kanam ah, euh, en tout cas sank li ma japp dal ci li nga wax moy euh, la réussite et au bout et au bout de l'effort très très bien en tout cas mbok yi ci mhm. loolu nak lañuy euh, mhm. terminer mhm. émission tam tamou tay bi di gëreum encore une fois euh, monsieur Ismaël euh, Cissé nek artiste comédien bu mag bu nga xamante bi théâtre yu muy def bëri na en tout cas ñoo ngi lay gëreum di la sant di la ñaanal gudd fan di la ñaanal wër di la ñaanal dal lepp lu nga xamante bi dal vraiment yene nañ ko suñu ay waajur ñoo ngi lay koy ñaanal di nuyu sa famille yëpp certainement ñu ngi tok di seetaan merci beaucoup monsieur Cissé ça a été un plaisir de vous recevoir c'est un plaisir Mathilde ma ñëw tok fi parce que Euh, ay nit ñu baax laa fi fi gis. parce que ma toogee fële di leen xool. Mhm. xam naa ay nit yu yiw ngeen. jërëjëf tonton loolu loolu am solo la. merci tonton nit dafa par am du génn ci moom bu la mhm. nit di seetaan. Mhm. war na jëlee ci yow dara. jërëjëf tonton te yéen ñëpp bi ma toogee fii xool leen gis naa. am ne am am na lu ngeen am. jërëjëf yàlla ci yàlla. dolli amin tonton waay mu nekk seen sutura ak seen trang Lamine Ndiaye nag sama xarit la Lamine <laughs>

Euh, euh, papa dama bëgg nga noppaliku. ndeysaan ñaata lan lan fay Sorano. <laughs> ñu la koy jox weer bu nekk pour nga jaaxaan rek. nga jaaxaan waaw defe naa ne nag du noonu. gis nga métier bi may def. Mhm. nek ak xale yi mooy dundal. dëgg la loolu la nag. Euh, la nit ñi xamul nak théâtre bokoy def. waaw ngay jokkoo ko nit ñi. di and ak nit ñi pour nga mëna dund. pour nga mëna a dund. très bien en tout cas ñi ngi lay gëreum di la sant encore une fois amin jere jërëjëf ñuy remercier aussi monsieur Omar Seck euh, di euh, nek ci force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation merci beaucoup et à très bientôt. voilà merci merci beaucoup merci. Ah, tonton Lamine. ñi ngi lay gëreum di la sant temps bi jeex xamna xam dafa am ben tour Mmh. rek lay jàllale. bu muy wax mmh. muy Iba Ndiaye Jaaje. d'accord parce que ku bëggoon théâtre la. dëgg la ba boole ñu ci syndicat am. Mhm. ñun ñi à l'époque mhm. pour que ñu jéem voilà très bien très très rapidement parce que le temps est terminé rek euh, féliciter Moustapha Ndiaye bi ma gis ci élément bi légui mhm. et may nuyu bépp kat bu waagu ñay 3 man jàngale na fa pendant trois ans di remercier aussi la dame bi nga interviewé CM Mathurin Diop di nuyu le secrétaire euh, général du CM monsieur Sek Daoude bon di gërëm téléspectateurs yi di nuyu jàngalekat di gërëm très bien madame Awa Diop ñu ngi lay sant di la gërëm plaisir de te euh, retrouver la semaine prochaine merci merci ñu ngi remercier encore une fois de remercier toute l'équipe du cabinet Active Consult. merci à vendredi Inch'Allah. merci euh, Moki yi ngi remercier bu euh, Anne euh, mi nga xamante ne bii moo nekk fële ca Foire salon bi de La Brosse di gis numéro de téléphone affiché waaye di remercier Mariama Mbaka parce que ça, son ne xam ngeen ne sañ numéro de téléphone 77 634 44 11 ma nga nekk fële ca Builders villa numéro H56 bonne suite des programmes sur la RTS2 au revoir. ma bene là ndam lu ma daan wax le woo barda nga tane fa léegi jamono soppeeku na yaa xam waay yow gisatuma la léegi jamono soppeeku na malkol mon ami gisatuma leen kon nee ko sax こねこねこねこせこねこせこねこねこねこねこねこえおえおえおえお Yes, right. Gracias por la belleza.